ñu ne sa ginnaaw am na ñu yéene bu ni toll. te nag am nañ ci sañ-sañ nag. loolu kenn mënu leen koo dindil mais man li ma leen di wax démb mooy lim sama waxu tey man quand je suis engagé dans quelque chose je ne triche pas man damay liggéey ba Sénégal yëpp xam ne maa ngi liggéey léegi nag mën ngaa liggéey. ba matal li nga war a matal yëpp yàlla def nga échec loolu day am. d'accord Pape Sané. voilà merci Ibi tey euh, euh, DG man euh, dafa am fu may ñëw après am ci ay quelques questions yu ma lay posé mais déjà dama bëgg euh, par rapport ak euh, soxna Maam Khady li mu wax potentialité yi nga xam ne moom la la région de Tambacounda am dañuy dama damay jàpp rek ni que région périphérique yi homme politique yi ñu am daañu jël lépp cest di askanu fa ñu dëkk moo xam Tamba Kédougou Kolda Vélingara Sédhiou Ziguinchor bi ñu moo xam ñoom fa ñu dëkk seeni askan saa yu ñu laajee ñoom saa yu ñu laajee seen askan dana leen tontu jox leen li ñu soxla mooy ay baat mais dañu seetlu ni que homme politique yi nga xam ne ñoo nekk ci zone yooyu moo tax tu as bien fait de poser la question est-ce que du am touti difficulté charge président conseil départemental fële à Tamba ak directeur général fii daan ci dellu si waat euh, dama jàpp ni que ñoom quelque part ni ñu war a taxawoo seeni askan duñ ko taxawee seeni askan peut-être du ma wax moom parce que xamaguma exactement mhm. lu mu def Tamba mais mun nañu dellu ci gannaaw ñi ko jiitu ci politique ñu mel ni ñoom dem si Yàlla Moussa Diallo ñu dem ci mel ni cabinet Kaba Diakité ñu mel ni ñoom Mamba Guirassy ainsi de suite ainsi de suite nga xam ne ñoom suuti turi ñoom ñëpp parce que mënoo am potentialité yi nga xam ne moom la Tambacounda am mhm. mu nekk depuis 1960 région bu gën a bokk ci région yi gën a ndóol yenn wul maana hmm. donc quelque part mooy que ñi nga xam ne ñoo fay wootee baatu askan bi ñoom xëy na daañu am la ñu bëgg mooy daañu leen fal hmm. daañu leen jox ay poste daañu leen def ay député daañu leen def ay ministre mais lañu ñu war a delloo askan bi duñ ko delloo askan tey yow ci domaine bi ngay yëngu euh, urbaniste aménagiste est-ce que xam nga de 1975 à 2005 les plus grandes forêts du Sénégal mooy Tambacounda. Mhm. xam nga trafic de bois bi ñuy wax léegi Casamance naan ñu ngi sàcc bant foofu ci àllu Tamba bi nañ commencé bois de Vène diir bii ma la wax. Mhm. bois de Vène foo ko doon dégg Sénégal foofu la doon jógee. ci diir boobu nga doon gis ay hommes politiques di joxe ay quotas dagg garab ak dagg këriñ ak daf këriñ di ko jox ña nga xam ne askanoowu ñu Sénégal xam nga ndax comprendre nga du ma tudd xeet mhm. mais askanoowu ñu Sénégal mhm. ñi leen di jox ay quota ñuy dagg suñuy garab di dagg suñuy àll mhm. di ko def ay këriñ di indi te loolu ci génération bi balaa moom muy ñëw donc ma yaakaar ni que tey jii moom bu ñëwee juddoo foofu am lu mu fa fekk am lu luñ ko nettali war na am benn taxawaay bi nga xam ne tey moom en tant que jeune cadre mhm. responsable politique war na am taxawaay bu différent tey nekkoon na directeur général HLM e mhm. balaa moo ñëw nekk directeur généralu SICAP mhm. man la ma xamoon ci Tamba ñaari HLM e moo fa amoon te ñaari HLM e yi bu ci nekk boo ko calculer matul ñaar téeméeru kër diir bi nga nekkee directeur HLM est-ce que teg nga fa un projet bi nga xam ne ci wàllu habitat bi nga xam ne en loyer modéré mun na jàppale waa Tamba. mooy premier question bi deuxième question bi gis ñu ni que conseil des ministres décentralisé bi fu ñu ko am 2015 y a une somme de deux mille deux cent trente sept milliards yu fa président diggee woon ba ci industrialisation bi ak liy coro wax mooy maanaam. université yi ay centre de formation yi nga xam ne ndaw Tamba daañu ci mun na du jàng ci ba am formation xaw ma ndax antu na wala antuwul mhm. bi ci mujj mooy conseil des ministres bi nga xam ne bu mille 2012 décembre 2012 mu diggee fa cinq cent milliards pour toujours Tambacounda tey bu ñu xoolee loolu yëpp tey yow euh, leader responsable politique nekk ci mouvance présidentielle. Mhm. est-ce que xalaat nga yow bi nga fa toogeek léegi indil nga Tamba Kounda nga xam ne yaay président conseil départemental bi benn apport ba nga xam ne mën nañu fàtte ñii nga xam ne ñoo fa ñoo la fa jiitu woon te defuñu ko fa parce que tey dafa mel ni dëkk bi tey la gën a soxla parce que dafa gën a yokk man Tamba bi ma xamoon ak Tamba bi xew am léegi population bi dafa yokk quartier yi dafa yokk parce que man ba ma fay xam ba ma fay dem juróom-ñetti quartier moo fa amoon Tamba bi muy rëy rëy juróom-ñetti quartier la tey jii ñu ngi ci ay vingt neuf xaw ma trente deux quartier trente quartier voilà donc moo lay wan ni que dafa ki tey est-ce que tey ci quartier yooyu yëpp population yi ñu ngi gis seen bopp est-ce que dans le département Koussaar ki feneen ak ki feneen tey ñu ngi gis seen bopp ni que justement ñun li ñu yàlla may ñu koy jëlee fii si suñu suuf di ko yóbbu feneen ak feneen est-ce que ñun waa Tamba ñi ngi am ay ristourne ci gannaaw est-ce que tey ji encore une fois administration bi présence bi mu waroon am ci population c'est-à-dire accès à la chose publique tey est-ce que waa Tambacounda il se retrouve dans ça cest tey ji est-ce que l'administration publique accessible na ci ñoom loolu laa buggoon laaj comme question mais benn question bi tey benn bii nag du question bi tey bii moom sama mm. xalaatu bopp la mm. xam nga moom ndax lan mu daw mu daw point e. mm. mënoon na nekk maire point e dafa daw daa daw dafa daw noo <laughs> non non suñu point e, moom dafa daw <laughs> ah, lu tax mu moom dafa daw parce que maa ngi fàttaliku Alpha Wale Diallo yàlla na ko yàlla yërëm jour ba mu ñëwee toog kër ga ñiy wax ma ne ko man de kii de depuis ba muy bokk ak sama rakk lycée d'application laa ko gëj a gis ba tey ji kon man ku ma xamul mënu ma ko jàppale. ndem yéen seen waay la mais man du sama waay mais moom dañoo wañ loxoom ne ko bàyyil dama uti Tamba. non kon dawul kon nañ ko. non waaw dafa daw ah. déedéet yow nga nekk Dakar. Ah. moom école bi muy wax fa laa jàngee. Ah. mu màggee fa. defee lépp foofu point e wax fa dëgg yàlla bu ñu naree wañ loxoom ne ko bàyyil fii demal fële. te moom mu yelloo point E. war wax fa dëgg yàlla moo tax ma ne dafa daw. <laughs> non daw dafa comprendre gars yi waaw tontu ko ñu dem ci Salma ñëw ci Pape Matar doog a avancer ci débat loolu moom euh, sincèrement dama lay rassurer euh, kenn weñu ma sama loxo ci dara euh, honnêtement c'est un choix personnel boo xamante ne au contraire sax man ba ma koy jël metti woon na ñi ma àndal parce que booba xëy na peut-être am na loo xamante ne aussi. Euh, duggoon naa ko ci biir commencé ko liggéey mu doon lu am solo alors donc euh, franchement de ce point de vue y a aucun souci euh, kenn wàññul sama loxo te duma sax genre boobu xanaa damay accepter dara euh, pour war ma mais sur ce point là kenn laajuma dara man maa jël sama décision bopp te ba ma ko jëlee aussi ci laa ànd ak le doyen Abdou Karim Mariko donc mu nekk sama premier guide politique boo xamante ne euh, moom moo teg samay pas euh, ci en tout cas démarche politique bu Tambacounda bon ma dellu si léegi ci euh, xëy na peut-être mag ñi man <laughs> mu bëgg trop di leen dama naan xëy na peut-être def nañ li ñu mën mais comme ni nga ko waxee en tout cas entre 1960 ba 2000 lu bëri waroon nañ ko mën a def parce que yàlla